temps ñaareelu pàcc info matin 8h jot na incha allah ci kanam bu leen fàtte daaw de min dina fi teew ci jàngat bi mu yitteel kàddu yi Ismaïla jox Fall di ministre de la justice yëkkati mu euh, so mu soxal Karim euh, Meïssa Wade ci wàllum amnistie bi waaye yi tamit euh, dinañ dalal docteur Pape Djibril Faye ab entomologiste la xam-xamam màcc euh, ci wàllum gunóor ni ñuy reproduire ak euh, jafe-jafe yi ñuy indil askan wi ñu ngi leen doon wax ci wàllum mango bi ci wàllum wëteen bi ak yeneen loolu lépp dinañ ci waxtaan ci kanam incha allah léegi léegi dañuy jàll ci xibaar yi ñu yaatal ko andi ceeg Cheikh Tidiane Diaw Cheikh ñu wax ci askanu Fass Jaxaw ñoom li ñuy naqarlu mooy euh, ñàkk kaaraange bi am euh, foofu li foofu ca Louga naata ñoom daal euh, guddi su jotee kenn du ñemee génn ndaxte éclairage public amu fa ñoom nag dañoo mer ba yéegee ko autorités yi ndaxte dañoo bëgg daal ñu andi leen lumière tamit jàppale leen ci ndox mi ñu teewlu ci Thierno Fall. Fass Diacksao bokk ci quartier fàkk dëkk yi nekk fii ci diwaanu Louga fii nag askan wi bokk na ci seeni jafe-jafe ñàkkum sécurité bi nga xamee ni si am na ci koñ bi ca dara warulu ko lu dul ñàkkum courant fii jigéen bi ci góorgóorlu jënd ñafe jënd sa xar sa xaru 40 000 yeew boo yeewee ñu yeewi ko yóbbu nga teg sa jagataal ñu ku gën a bëggoon ñu pousse Jakarta bi génn dem ak moom am am amu sécurité bande yaa ngi ci àll ci koñ bi jaan yaa ngi ci koñ bi ak jiidi ñoom nag ay at a ngi nii ñuy daw ci ginnaaw autorité yi ngir seen koñ bi mën a am courant gis nga installation bi ni mu rafetee mais ba tey amuñu courant boo waxee ñu fi ñu ko war a branché danoo war a dagg tali bi depuis un an dox nañ si def nañ su nekk ñoom waa municipalité bi ñëw nañ fi dig ñu ni xëy na bala ñoo màggal daaw loolu ak yeneen ak yeneen. ci geneen wàll fii ci koñ bi ba léegi am na ay kër yu nga xamee ni si ndox mi jotee gu fa. mais na kër yoo xam ne amuñu ndox dañoo sonn. sareet la ñuy jël sareet fay ndox nga booy ko bëgg a dundoo say dafa métti dëkk bi dafa métti nañu dimbali nga yàlla kër yi amul ndox ñëw utal ñu may ñu ndox. leneen lu ñëw ku ci jafe-jafe waa Fass Diaksaaw mooy mbalit mi nga xamee ni si mu ngi ni xas ci koñ bi. kaasoon nañ fi ndox mi ba ndox mi randu na mbalit mee fi des mbalit moom fu ñu jëlee ca biir dëkk bi rek dëkk ba rek ñun lañ koy sotti fii doo fi nooyu guddi doo fi nooyu bëccëg boo yore doom ju asma moom mooy loolu ndawi quartier bi ñoom li ñuy jooy mooy financement yi nga xamee ni si ñu ngi koy dégg ca mënuñu cee jot financement yi tamit booba léegi gis ñu dara ñun ñëpp ñoo déposé un projet lañ bind sax booba léegi gis ñu si dara mais Moussa Waa Diop moom jàppalewul waa Fass Jassaaw mbooleem jafe-jafe yooyu nag moo waraloon ba waa koñ bi génn ngir fésal ko waaye itam ngir sàkku ci autorité yi rawatina kii di meeru dëkk bi mu ñëw ngir saafaral leen seeni jàngoro fii ci Sébikotane moom euh, ña nga xamee ni euh, ñooy impacté train express régional démb dañoo bloqué euh, route nationale numéro un ñu. décidé bloquer circulation bi ci axe boobu nga xamee ni nag euh, li dafa stratégique lool euh, ñuy laaj seen indemnisation loolu tax ba gendarme yi fekk leen foofu euh, tas ndaje bi teg loxo lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ñoom tey jii ci ëllëg lay forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique di tijji à l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes défis de stabilité et souveraineté moom mooy euh, thème mu huitième édition bi nga xamee ni euh, dañu ko jagleel Afrique lusophone euh, maanaam réew Afrique yi nga xamee ni portugais moom mooy seeni kàllaama loolu tax ba ñaari président yu nekk ci bokk ci réew yooyu ñi ngi fii ci Ndakaar ku ci mel ni président bu Angola ak président bu Cap-Vert soxna naata dinañu teewee forum bi nga xamee ni dina am ci diirub ñaari fan fii ci Ndakaaru mhm, ñu jàll ci tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw basketball ak finale Ligue du Sénégal Sénégal euh, Dakar Université Club jël ndam li mu di guléet muy euh, guléet Duc euh, di gagné Coupe du Sénégal boobule match bu serré la woon nag 69 67 ñaari poñ donc moom moo dox ci diggante ñaari équipe yi loolu tax ba entraîneur bi di parfait adjivon kontaan loolu di jaajëfal joueur mi ñu teewlu ko ci micro Ahmadou Ba. sante ko yàlla ndokkeel équipe adverse jaraaf GA bi xam ne wane na que mérite na victoire ndokkeel sama joueurs yi malgré coono yi yëpp saison bu gudd bi ñiy gaañu fi yëpp ñëw nañ joxe li waroon def tamit supporters yi image yi laa bëgg si ñoom ñu soutenir seen équipe quel que soit parce que yàlla mooy joxe ndam bu ñu joxee ndam nañ ko nangu bu ñu joxee tamit defe nañ ko nangu donc loolu loonu daal donc lan moo nekkoon clé bi il fallait motiver joueurs yi ñu xam ne ne am nañ opportunité pour pour marquer histoire mooy dugg ci histoire bi mooy ñoom ñu doon génération bi xam ne ñoom ñoo ñëkk a gagné coupe Sénégal donc loolu moom moo ci woon ñu ci sant yàlla ci loolu daal. Parfait Adjuvon nekk entraîneur bu Dakar Université Club naata ñu jeexale ko ak mm-hmm. Big Tio Soccer euh, Coupe d'Afrique ba nga xamee ña ngi koy amal euh, fële ca Mozambique euh, Sénégal qualifié démb ci demi final compétition bi ginnaaw bi mu joué ñaari match yu njëkk yi waaye démb nag xawoon na metti lool ci seen diggante ak Égypte gune yu Mamadou Diallo yi mujj gagné 6 à quatre maanaam juróom benn ci ñeent ci match boo xam ne dafa serré jusqu'au bout ñuy am yaakaar rek ni équipe bi dina gën a monter en puissance au fur et à mesure que compétition bi di avancer. Mm-hmm. on l'espère bien merci beaucoup euh, Cheikh Tidiane Diawo léegi léegi.